jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q Radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaay xibaar yi ñu fesal boppi xibaar yi gannaaw bi nga xamee ne ñu ngeen nemmeeku ay accidents wala ay jafe-jafe yu bëree bari si rek kaw li nga xam ne moo di yoon yi loolu waral kilifa yi ni ki démb si rek daal alxames gi nag daal amal ab nag ndaje joo xam ne li ko tax a jog nag mooy nag daal waxtaanee naka la ñu gën a mën a yee li nga xam ne moo di daal askan wi nga xam ne ñooy jëfandikoo yoon yi pour rek daal ñu nag daal muy tëndiku li nga xam ne moo di ay accident wala jiyee yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku si rek kaw li nga xam ne moo di yoon yi surtout nag mbedd moomu ñu xamee si Batil Hadin Highway dinañ ko yaatal si biir xibaar yi gannaaw nag a waxtaan woo xam ne tàmbali nañ ko pour rek daal gis ne li nga xam ne moo di draft constitution bi direk rek ndeyu sartay réew bu bees bi nga xam ne moom lañ bindoon fexe nag naka lañ koy nag daal di jëmmalaatee lu waral li nga xam ne moo di mbootaay bi ñu xamee si Gambia Participate ñoom nag daal lëkkaloo si ak yeneen li nga xam ne moo di mbootaay daal dinañ nag tàmbali li nga xam ne moo di ay waxtaan pour daal seet daal naka la ñoo fexe li nga xam ne moo di draft constitution bi daal ñu fexe nag daal ñu nag daal di ko jëmal dinañ ko waxtaan si biir xibaar yi Ministry of Finance and Economic Affairs di bunta bi xam ne ñoom lañ dénk koppar ak koom-koom li nga xam ne moo di daal réew mi lëkkalu ak World Bank nag daal di dalloo li nga xam ne moo di projet bi nga xam ne moom xam xamee si Gambia Resilience Inclusive Skills and Equity uh, projet boo xam ne li ko tax a jóg mooy nag dina yaatal mbirum nag daal njàngam li nga xam ne moo di daal métier dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yi ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaatal ajuma la fanweeri fan yi ak benn si weeru mi atum 2024 di atum ñaari junne yi ñaar fukk ak ñeneent ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu rek yaatal li nga xam ne moo di xibaar yi gannaaw bi ñu nag nemmeekoo li nga xam ne moo di ay accident wala ay jéey yu baree bari yoo xam ne ñu ngi koy nemmeeku si rek kaw li nga xam ne moo di xàll yi wala kaw yoon yi surtout nag mbedd moom ñu xamee si Batil Hadin Highway loolu waral ni ki démba si alxames gi ñoom kilifa yi nga xam ne ñoom dañ ñoom lañ dañ ko wàllawu nag daal amal nañ ab nag daal ndaje boo xam ne li ko tax a jóg nag daal mooy fexe amal ab campagne wala daal ab yëngu-yëngu boo xam ne li koy tax a jóg mooy gën a yee askan wi surtout ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo li nga xam ne moo di yoon yi fexe nag daal ñu nag daal xam naka la ñoo jëfandikoo yoon yi mun a moytandiku li nga xam ne moo di ay accident wala ay jie surtout nag daal mbedd moom ñu xamee si rek daal Batil Hadin Highway suñ nag daal sukkandekoo si rek daal ab caytu boo xam ne mbootaay boobu ñu xamee si World Health Organisation nag daal amal nañ ko xamle woon nañ daal si rek daal réew yi nga xam ne daal nemmeeku nañ fa ay accident wala ay jee yi nga xam ne mu ngi xew si rek kaw yoon yi Gambia nag daal mooy nag daal juróom-ñetteelu réew si li nga xam ne moo di daal àddina si si li nga xam ne moo di daal wàll woowu lu waral kilifa yi nag daal jàppane jot na li nga xam ne moo di wàll nag daal nag daal ñu nag daal jëm si indi li nga xam ne moo di ab saafara Ousmane Sagnang managing director bu Gambia eh, wala rek bu National Roads Authority moom nag daal dina wone li ñu nag nemmeeku daal ne daal mooy waral accident yi ñu koy nemmeeku si kaw yoon yi wala daal kaw xàll yi mooy nag nemmeeku nañ ne ñu bëri ñi nga xam ne ay dawalkati oto lañ mel na ni daal eh, amuñ xam-xam ju bëri si li nga xam ne moo di yoon yu bees yi nga xam ne jamono ji amal nañ ko si biir li nga xam ne moo di réew mi surtout nag daal mbedd moomu ñu xamee si rek daal Batil Hadin Highway daal loolu sax waral na ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàll woo nag daal ñu bëgg a gën a yee ñi nga xam ne ñuy jëfandikoo yoon yi ñu gën a mën a xam euh, yoon yooyu daal naka lañ ko nag daal di jëfandikoo te nag wax ne la lii nag daal mbir la moo xam daal dinañ ci xar li nga xam ne moo di seen nag daal ab tànk yi nag daal tube yi keneen ku ko feelu si ay kàddoom Amadou Camara noonu lay wuyoo nga xam ne moom mooy chair of the National Assembly Select Committee on Health moom nag daal dina wane daal li nag daal di xamal ñi nga xam ne sax daal ñoo bugg a nag amal campagne googu surtout nag daal National Roads Authority ngelawaay nañ nag daal fexe nag daal bu ñoo laajaat li pour rek amal mbir moomu nañ daal a laaj nag lu baree bari gannaaw bi nga xam ne wax ne lii nag daal euh, lu ñu war a a fay daal te nag daal moom sax daal dina xam ne ne bu ne sax daal mbir mi àggee nañ ko ñi nga ñoo togal askan foofu si pencal ndaw réew mi moom nag daal dina bokk si ñi nga xam ne ñoo leen di ñoo leen di njëkk a farleel si li nga xam ne rek daal pour rek daal leen ab nag budget bu yaatoo yaatu wala nak daal ay campagne yoo xam ne dañ gën a mën a yee askan wi si rek naka la ñëw mën a jëfandikoo li nga xam ne moo di yoon yi mën a moytandiku li nga xam ne moo di ay accident wala ay jee yoo xam ne ñu ngi koy nemmeeku si kaw li nga xam ne moo di yoon yi ki ñu xamee si King Koli yore nombal tànk bi ñu xamee si commissioner of the mobile daal dina wane li nga xam ne moo di Gambien si nag daal lim leen yi nag daal xelal mooy nag daal nemmeeku nañ ne li nga xam ne moo di accident yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku si kaw li nga xam ne moo di daal yoon moom nag daal dafa nag yaakaar ne daal daanaka jikko yi nag daal lañ war a wécci gannaaw bi nga xam ne wax na ne léegi-léegi nag daal jikko jikko yu nag daal rafetut yi nag daal moo dee waral accident wala jiyee yi nag ñu koy nemmeeku si rek kaw li nga xam ne moo daal yoon yi gannaaw bi nga xam ne daal moom nag daal dina daal ñaareel bu nag accident wala jiyee xewee si kaw yoon yi daanaka dañ ci dee joxoñ baaraam suñu borom di yàlla waaye nag moom na wax na ne ñu ci génnee yàlla gannaaw bi nga xam ne wax na ne ñun doomi aadama yi ñoo war a su suñu nag daal jikko bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo daal kàddoom mu nag daal di wax ne war nañoo fexe surtout ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo yoon yi ñuy daw ndànk mun a dal ndànka bu ñu sukkandekoo si ay kàddum mu nag daal di wax ne daal loolu rek daal lañ mun a def gën a mun a moytandiku nag daal mbirum nag daal accident wax tamit lu aju si rek wax na tamit lu aju si rek wàllu nga xam ne noonu nag lañ dee jébbalee nag daal licence euh, drivers licence nag loolu it nag lu ñu war a gën a saytuwaat la bu ñu sukkandekoo si ab ay kàddum si atum 2023 nemme ñoom Gambia Police Force Mobile Traffic Unit le woon nañ nag si at moomu rek ni ki daaw li nga xam ne moom nag lañ nemmeeku si ay accident si biir réew mi tollu woon na si junne ñaari téeméer ak daal fukk bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di euh, daal euh, seen ab euh, saytu boo xam ne defoon nañ ko xam ne lañu si rek lim boobu lu toll woon si téeméer ñeneen fukk ak juróom-ñett ñoo si jëree li nga xam ne moo di daal ay nag daal loraange. wax na tamit si nga xam ne moo di at moomu wala si at moomu di atum 2023 si mbedd moomu ñu si Batil Hadin Highway lu toll si téeméer fanweer ak ñaar si li nga xam ne moo di daal ay accidents wala ay jiyeen nemmeeku nañ ko si kaw yi li nga xam ne moo di yoon yooyu te si lim boobu fukk yi ak juróom benn yi nag daal accidents yu jéggi li nga xam ne moo di dayo la Omar Cissé nga xam ne moom mooy président euh, bu Gambia Transport Union moom it nag daal dina wone li nga xam ne moo di daal euh, jafe-jafe bi daal moom nag daal dina wax ne daal euh, mu joxoñ na si nag ñi nga xam ne ñooy dak dawalkat li nga xam ne moo di oto yi mu ne li ñu nemeeku mooy nag ñu bëri ñi nga xam ne ñooy dawal oto si ko yoon yi daanaka seen nag daal xarañteef si wàll woowu nag daal Euh, nag daal amuñ ko te tamit anam yi nga xam tamit noonu lañ lay joxe li nga xam ne moo di license li drivers license loolu tamit lu ñu war a nag daal gën a seetaat la bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di ay kàddu moom ki ñu xamee si Omar Cissé Matar Cissé permanent secretary ministry of transport moom it nag daal dina wane banqaas bi nga xam ne moom lañ leen dénk di banqaas bi nga xam ne ñooy saytu mbiru demaka ak dikk gi ñoom nag daal am nañ nag daal mbégte di nag daal xam ne ne li nga xam ne moo di nag daal euh, jafe-jafe yi yëpp na daal ñoom na mën nañ see nag indi li nga xam ne moo di daal ab saafara lëkkaloo si ak daal yeneen li nga xam ne moo di mbootaay yi nga xam ne nag daal ñoo nag nekk si seen i li nga xam ne moo di ron bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kaddu yi euh, moom ki ñu xamee si rek daal si se di rek euh, ki yore normal tànka bi ñu xamee si permanent secretary ministry of transport di banxas bi nga xam ne ñoo lañ dénk mbiru dem ak dikk gi ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar gannaaw nag daal ab ñàkk déggoo gi ñu nag nemmeeku waral nag daal li nga xam ne moo di draft constitution bi nga xam ne si atum 2021 yóbbu woon nañ ko foofu si pencal ndawar répp rek daal ñu jëmal ko waaye mbir mi nag daal mu jéewuñ ko nag daal di jëmal gannaaw nag ab ñàkk déggoo waaye nag tax na yenn si ay mbootaay nag daal noppale ko wuñ ba léegi nag daal ñu ngeen nag oote li nga xam ne moo di waxtaan pour daal fexe li nga xam ne moo di draft constitution nag daal ñu mun koo jëmal Gambia participer si nag daal ñoom nag daal ñoom ak daal yeneen li nga xam ne moo di ay mbootaay nag daal tàmbali nañ li nga xam ne moo di waxtaan pour daal fexe li nga xam ne moo di draft constitution bi nag daal ñu daal di ko jëmal li nga xam ne moo di constitution di ndeyu sa tare bi nga xam ne moom la ñoo jëfandikoo léegi si atum 1997 nag lañ ko nag daal di euh, bindoon bi nga xam ne moom nag lañ bëggoon mu wuutu ko boobu nag daal wax nañ ne si atum 2020 lañ ko nag daal di bindoon atum 2021 yóbbu woon nañ ko foofu si pencal ndawar réew mi waaye nag daal mbir bi nag ñàkk a déggoo nag daal munuñ ko woon a daal di jëmal waaye nag tax na ñoom ñi nga xam ne ñoo di daal euh, Gambia participer si nag hôtel yi nga xam ne moo di ab ndaje boo xam ne ay kilifa yi jógee ko si nguur gi teewee nañ ko ay nag kilifa yi jógee ko si ay political parties teewee nañ ko ay kilifa yu jógee ko si ay euh, nak daal mbootaayu euh, diine wala ay kilifa diine fekkee nañ ko ñi nga xam ne ñoo togal ak seen si pencal ndawar réew nañ ko ñi ko si rek xam ne moo di bunti tasukaay xibaar yi teewee nañ ko ñu jóge aussi rek li nga xam ne moo di rek daal mbootaay jàmbur yi nag daal di nañ ko nag daal di euh, teewee ñoom ñi ñëpp nag daal euh, tàmbali nañ nag waxtaan pour daal fexe nag daal linga nga xam ne moo di draft constitution daal ñu nag amal si ab déggoo joo xam dina tax ñu mun koo nag daal di daal li waraloon nag nag daal eh, ñàkk a déggoo amoon ci nag daal mooy yenn yi nga xam ne dañ ko nemmeeku si rek draft constitution bi bokk na si loolu ñu xamee si rek vetting of the appointment of ministers maanaam li nga xam ne moo di ministres yi bu fekkee ne daal eh, dañ leen di tànn faw ñu jaar si li nga xam ne moo di pencal ndawa réew mi député yi nag ñooy tànn li nga xam ne moo di rek daal ministres yi loolu nag nemmeeku nañ ne mu ngi si draft constitution bi loolu nag daal am na ñoo xam ne ànduñ ci waxoon loolu sax taxoon nag daal ñàkk déggoo nag amoon loolu baat boobu ñu xamee si sakku la loolu nag wax nañ ne nemmeeku nañ ko si draft constitution bi indi woon na ñàkk a déggoo presidential two two term limit maanaam képp koo xam ne jiite nga réew mi waruloo weesu ñaari taam wala waruloo weesu ñaar ñaari ay loolu yi daal bokk na si nag daal ñàkk a déggoo yoo xam ne daal ñenn ñi nag daal ñàkk nañ ko déggoo ba taxoon nag mbir mi mujjewuñ ko nag daal di jëmal waaye nag daal terewul am na ay mbootaay yoo xam ne ba léegi ñu ngi taxaw pour gis na li nga xam ne moo di draft constitution bi nag daal ñu nag daal di ko jëmal si ndaje moo xam ne ñu ko doon amal Mar Niang yore nombal tànk bi xam ne si executive director Gambia participate moom nag daal dina am na nag yaakaar nag daal buñ nag wéyandee di nag daal waxtaan amaana si li nga xam ne moo di daal kàddu mu daal jot na réew mi nag daal jëfandikoo constitution wala daal ndeyu sartay réew bu bees su ko defee nag daal li nga xam ne moo di doxalin gi mu ne nag daal di uh, soppeeku Kalifa MM Mbaye député Clark euh, nga xam ne moom it nag mu ngi foofu si pencal ndaw réew mi moom it nag wax na ne daal am na yaakaar dak yaato yaatu daal li nga xam ne moo di daal euh, draft constitution bi nag daal bu fekkee ne wéyeen li nañ nag amal ay waxtaan yu na daal mbir mi bu dellu waatee si la nga xam ne moo di pencal ndaw réew mi amaana dinañ ko nag daal di euh, Saliou taal nga xam ne moom mooy chairperson board of advisors Gambia Participate moom it nag daal dina wax ne li nga xam ne moo di mbirum nag daal eh, ndeyu sartay réew nag daal mbir la moo xam ne daal daanaka ñëpp nag daal lañ ci war a boole si rek li nga xam ne moo di waxtaan yi te nag wax na ne waxtaan yooyu nag ñi nga ñi nga xam ne a jiite mooy ñi nga xam ne ñoo ngi ko réew mi moom Mr Saliou Tall mu nag continué di nag daal wax ne daal faaw nag daal ñu amal ab déggoo ñun ñëpp nag daal su ko defee nag draft constitution nag daal ñu nak daal di ko jëmal gannaaw bi nga xam ne wax na ne li nga xam moo di constitution bi nga xam ne moom la ñoo jëfandikoo ba léegi di 1997 constitution bi dafa am nag yenn si ay mbir yo xam ne mu fa yoo xam ne daal nag daal euh, dëppoowut ak li nga xam ne moo di daal nekkinu li nga xam ne moo di daal askan ba daal na daal jàppane daal war nañoo wéyandil ay waxtaan fexe draft constitution bi nag daal ñu nag daal di ko jëmal jol John Charles Jai chairman of di chairman bu YMCA moom it nag ak ki nga xamee si Aneta Mahoney Gambia participate programme manager ñoom ñee ñëpp nag daal sàkku nañ ci li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nekk nekk si rek langu li nga xam ne moo di politique bi ne daal ngelawaay nañ nag daal eh, génnee li nga xam ne moo di nag wuute yi nekk seen diggante fexe ñu waxtaan déggoo li nga xam ne moo di draft constitution nag daal ñu nag daal di ko jëmal ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di xibaar Ministry of Finance and Economic Economic Affairs di bunta bi nga xam ne ñoom lañ denk wàllu euh, koppar ak koom-koom li nga xam ne moo di daal réew mi euh, lëkkalu ak World Bank nag daal daal dinañ launch euh, ab projet bi nga xam ne moom lañ duppee li nga xam ne moo di Gambia Resilience Inclusive Skills and Equity project ab projet la boo xam ne li ko tax a jóg mooy gën a yaatal mbirum nag daal njàngam métier gën a nag daal jox gédde mbirum nag daal métier si biir li nga xam ne moo daal réew mi li nga xam ne moo di daal projet bi nag daal xam nañ ne ñi nga xam ne ñoo koy seq war koo doxal bokk na si Ministry of Basic and Secondary Education di banqaas bi nga xam ne ñoom lañ dénk njàng mu suufee meeg njàng mu diggu doom bi bokk na si Ministry of Higher Education di banqaas bi ñu dénk mbiru njàng mu koy mi bokk na si National Nutrition Agency bokk na si National Social Protection Secretariat bokk na si Department of Community Development ñoom ñëpp na daal ñoo war a doxal li nga xam ne moo di projet bi Mohamed B S Jallow nga xam ne moom mooy vice président si rek li nga xam xam ne euh, mooy nag daal réew mi daal dina wane li nga xam ne moo di projet bi projet la bu am solo la euh, boo xam ne nag daal bu fekkee ne jëmal nañ ko dina nag daal indi ay saafara ci rek ay jafe-jafe yu bëree bari yoo xam ne ndaw ñi ngi koy dund ci rek daal ñàkk xëy ak yeneen yoo xam ne euh, ndaw ñi nag daal soxla nañu ko Xadijatu Si nga xam ne moom mooy ministre of basic and secondary education ak ki nga xamee si Père Gomez nekk ministre of higher education ñoom ñëpp nag daal euh, wax nañ ne daal am nañ nag daal mbégte euh, li nga xam ne moo di projet bi ñëw bi nga xam ne daal ñëw na ko euh, nga xam ne daal ap nag mbir la moo xam ne daanaka dañ ko nag daal jagleel mbirum njàng ak li nga xam ne moo di daal njàngale wàllum li nga xam ne moo di daal métier ne daal lii lu ama am solo la bu fekkee ne lu ñuy jëmal daal luy nag indi nag ap yokkute si biir li nga xam ne moo di daal réew mi la Euh, ki nga xam ne moom lañ xamee si foo yi bureau office nga xam ne moom mooy World Bank resident representative moom it nag daal dina wane li nga xam ne moo di nag daal euh, projet bi nag daal buñ ko nag daal jëmbalee nag daal luy indil njëriñ nag li nga xam ne moo di daal réew mi la te nag daal ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi réew mi nag daal dinañ si gis bu baax a baax li nga xam ne euh, moo di daal seen nag daal bopp Christine Bodiwick World Bank's practice manager for social protection ak uh, moom it nag yëkkati nag kàddu ni nag daal di wax ne li nga xam ne moo di projet bi nag projet la boo am solo la boo xam ne nag daal foo ko nag natta si rek daal njëriñ uh, daal di ko weesu te nag wax na ne buñ ko nag jëmbalee ba noppi la ñëw nag sax daal gën a xam njëriñ nag bi nga xam ne projet bi daal dina ko am bu ñu sukkandekoo si ay kàddoom si xibaar gu mujjee gi Ministry of Gender Children and Social Welfare di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dënk mbirub euh, soxna yeeg li nga xam ne moo di nag daal euh, li nga xam ne moo di nag daal askan wi ñoom nag lëkkalu ak Africa Center for Democracy and Human Rights Studies ak daal seen i ay àndandoor keroog alxames nag daal dinañ tàmbali ñaari fanu ndaje yoo xam ne dañoo waxtaane mbiru nag li nga xam ne moo di soxna yi pour rek daal fexe li nga xam ne moo di soxna yi ñu gën a soob seen nag loxo si rek mbirum li nga xam ne moo di daal jàmm ak kaaraange li nga xam ne moo di daal askan surtout nag daal si réew yi nga xam ne ñoo nekk si rek suuf yi li nga xam ne moo di Afrique soow jant li nga xam ne moo di daal ndaje mi nag daal bokk na si ñi nga xam ne ñoo ko teewee ñoo xam ne ñu ngi jógee ko si réewum bu mel ni senegal Cape Verde Guinée Conakry Guinée Bissau Tchad ñoom ñëpp nag daal teewoon nañ ci li nga xam ne moo dal euh, ndaje moomu euh, si rek ndaje mi Fatou Kinte di minister of Gender Children and Social Welfare woy daal dina nga xam ne moo di daal kàddu daal mi si nag waxtoom la daal di ñëw bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di kàddoom daal li nga xam ne moo di soxna yi seen nag dugal seen nag loxo pour daal jàmm ak euh, kaaraange am si rek askan wi lu ama am solo te nag daal mbir mi nag daal luñ nag war a gën a daal di nag yaatal la bu ñu sukkandiku si ay kàddoom Hannah Foster executive director bu Africa Center for Democracy and Human Rights Studies moom mi nag daal dina wax ne li nga xam ne daal euh, soxna yi ñu génn leen nag daal di nag daal euh, sas ñu gën a sóob seen nag loxo si rek woote jàmm wala nag indi jàmm ak karange li nga xam ne moo askan wi mbir la moo xam ne daal lu am solo la gannaaw bi nga xam ne wax ne daal daanaka fépp foo xam ne euh, coow am na fa bu fekkee daal boole nañ ci li nga xam ne moo di soxna yi jàmm mun na am dal mun naa am te nag wax ne loolu daal mooy nag taxawaayu li nga xam ne moo di daal seen nag mbootaay bi te daal seen nag ndaje mi ndaje la boo xam ne daal dinañ ci nag daal waxtaan nag daal euh, lu bëree bari si rek wàllu Aïssatou Dé Sawane nga xam ne moom mooy chairperson of the National Women's Council moom it nag daal dina wane daal eh, li nga xam ne nag daal eh, moo aju nag si rek wàllu jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy nemmeeku si rek daal àddina si daanaka lu bëree bëri si jafe-jafe yooyu nag daal ñi si dee gën a sonn mooy nag li nga xam ne moo di soxna yi ak li nga xam ne moo di daal tout tànk te nag wax ne ne jot na li nga xam ne moo di soxna yi ñu gën leen nag daal di eh, ubbi seen xel ñu gën nag di woote li nga xam ne moo di jàmm ak li nga xam ne moo di daal daal jàngale tamit bu fekkee ne daal jafe nag daal am na naka la ñëw nag daal doxe ba rek daal jàmm ak daal dam daal nag daal di am bu ñu sukkandeku daal euh, si rek li nga xam ne moo di daal kaddu si rek kaddoom si rek daal euh, njeextelu ñaari fanu ndaje yi nga xam ne ñu ngi koy nag daal amal ñoom ñi xam ne ñoo teew woon nag daal ndaje mi euh, dinañ nag daal seet nag daal lan lañ tënk si rek daal ñaari fan yi nag daal lan lañu waxtaanee daal dinañ ko nag daal di tënk def ko si li nga xam ne moo di daal wala tënk ko si li nga xam ne moo di ay bataaxal yoo xam ne dinañ ko daal jébbal li nga xam ne moo di kilifa yi nga xam ne nag daal ñoo yore baat wala ñi nga xam ne ñooy daal dogal mbokki loolu mooy ndar képp wala mooy jeexal seen jotaay bu mag bi di jotaayu xibaar yi xaritu borom bi ak askan wi Ibrahim Khalil Gueye moo leen ko doon jottali si kalama wolof jaajëfal leen si seetaan bi ak déglu bi jaajëfal ñi jàppoon si xibaar yi ba mun a sotti jaa ngeen jëf